nit bu ma ko nawloowul duma tontonte ak moom looloo tax yu bari yuy am mais am ci yoo xam ne sax man lañuy ñuy attaqué mais ça me dit rien ndax daf ma wóor ni ñu koy wax raw naa leen ba noppi waaw yàlla xam na ko ñoom ñi sant si ñëpp amu ci kenn ko xam ne dinaa la xool ba defa ni naw la nga pour man bu la neexee nag def seen groupe raggante seeni gannaaw dem wooye ñu kenn xamul pour ñu di leen defal propagande kooku seen affaire la moi pas besoin waaw ndax yàlla ma defal propagande ba noppi waaw ko defee rek ngeen xam seen bopp te ngeen gën taxaw capitaine wax na leen ko ci seen daje yu mujj yi am na ko xam ne bu ñu yebee kilifaam rek ca moom la waaye njaboot bu xam kilifaam def la ko war taxaw taxawaay ba ko war kenn du yëpp kilifaam waaw bu ko defee rek ñu yërëm njaboot yi yërëm itam sunu gan yi man maa doon tenir pour que ñu bañ di guddee ci gàmmu yi ndax buñ fi ñëwoon cinq minutes sax mu doy nit ñi kon nag bu ñu amee trente minutes sax baax na bu ko defee li ci des nit ñi dem récupérer tuuti bu subaa lu ñuy mottali ñu mottali ko bu ñu war a jox kàddu ñu jox ko mu wax eh delloo cant ci sunu gan yi ñëw ni ko oustaz Cheikh waxe ñu ci jóge Algérie ñu jóge marok ñu jóge Côte d'Ivoire ñu jóge Cameroun ñu jóge Mali ak sunu waa Mauritanie ak waa Gambie ñoom ñépp tabaarakallaahu ku ci ne na mu rafete rekk taxaw nga ko yal yàlla fay leen te yàlla barkeel seen lépp te yàlla yokk sutura yi te yàlla yokk tawfiq yi ma jox capitaine mu conclure te joxe ñaan ñun ñëpp ñu ñaan ko yeneen te jàmm bu suba bu suba nag ñu soog a yeggali li ci des xam naa sama bokki bopp yi Mouhamad Mbacke ak Sidi Ahmedil Amin xam naa ba suba am na ñu wax bu soobee yàlla kon nag sëriñ nga conclure rek waaw incha allah sant yàlla ndax bés bu toll nii ñu bokkoon ko fekkee daaw bokkaat ko fekkee ren loolu gannaaw sutura yàlla ngor rekk ko ngor rekk ko mën kàddu yi sax jaru ko di si ndax li nga wax mooy dëgg buñ fi defoon cinq minutes demit mu doy ndax da di suñu source di suñu buumu xol di suñu xolu xel moo tax bu ñu dikkee teg la bët rek doy na lu mu war jur ci ñun dana ko jur ci ñun te ci mbaaxu yàlla danañ ko jëriñoo ah ngeen baal ma nag pànkuma sax am lu mu bëgg a seede rek ndax si li nga tudd fii léegi ñun ci suñu bopp yëg nañ minimum mu trois tentatives d'assassinat ca hôpital ba te bu dul woon yow ñoom ñu tëdd kon nag fàtte xaju fi comédie rekk fi mën a nekk nag ndax nag ni ma ko yàggee wax naafiq dafa di sport nationalu senegal waaye li ñu mës a jàngal moo ci nekk yàlla ngi fi di baax ba tey te incha allah si yàlla mu baax moom dina la gën a teg loxo incha allah si ci barke mag ñi ñu yaakaar ñëpp ah kon nag loolu lañ ci mënoon teg xanaa ko ñu jàngaat ñaan gi rek jàngaat fatiha gi juróom-ñetti Quraysh falaxe ak naas bi ak salaatul fatiha gi ah di ko defaat di borom guddi gi waaye nag si loo gis dafa am buntam kon nag buñ ko yéenee àddiye bi itam ci sa loxo lañ ko mën a teg nga jottali ko incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah Nasıl